ñaanu bés bi yow yàlla maa ngi lay ñaan nga musal ma ci ayu lépp loo xam ne def naa ko ayu lépp loo xam ne defuma ko allahuma inni audu bika min charri ma amiltu wa min charri ma lam amal allahuma ma amiltu wa min charri ma lam amal xadisu bis bi yonent bi salallahu alayhi wa sallam nee na tuskare ñeel na waa ñi nga xam ne day nettali ay wax di ca ngir nit ñi di reetaan tuskare ñeel na ko tuskare ñeel na ko xadis bi ak tirmidi génnee na ko wa sallam waylun lilladi li yudxika bihi alqawma suba waxtu na bi 6h14 juróom benn waxtu yi tegal fukki simili ak ñeent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 jant bi dana fenk 7 heures 29 juróom-ñaari waxtu yi tegal ñaar fukki simili ak juróom-ñeent di so 18 heures 49 juróom-benn waxtu yi tegal ñeent fukki simili ak juróom-ñeent yàlla na nu yàlla nangul te nangul leen amin